te yaakaar naa tamit ñàkkul ni am na ay manquement mais incha allah dinañu fexe ba déwén bu ñëwee manquement yooyu nga xam ne si nemmeeku nañ ko wala bokk yenn ci ay journalistes wax nañ ko parce que nag événement bi moo toll noonu bu ñu sañoon kenn du fi ñëw di am problème mais ak dimension événement bi ak li mu làmbul ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne si nekk na ci moo tax des fois mënul ñàkk yenn yenn manquement yi

day nekk erreur yow bu fekkee jàpp nga ni envoyé nga te envoyé woo mën na andi mën na andi benn benn difficulté après booy jot sa badge beneen bi tamit mooy euh, ñi nga xam ni si ñëw nañ te nombre bi ñu joxe woon pour ñu accréditer leen c'est-à-dire mën nga nekk benn site internet wala benn rajo bëgg def cinq personnes par exemple te ku ne xam na ni bu fekkee topp nañ ku nekk li nga bëgg rek ñu defal la ko mun na am jafe-jafe moo taxoon ñu xool yenn ci rajo yi ak yenn siti yi ñu ñu ñu limité leen cest à ci trois wala deux badges am na nag ñoo xam si loolu moo leen andil problème am na ñoo xam si tamit xëy na jotuñoo génnee seen i badge loolu tamit indi na indi na ci benn benn manquement mais lu ci am rek ñun dañuy wax ni ñu ngi jégalu bu baax a baax donc ci manquement yooyu nga xam ne si am na ci te incha allah bu ñu demee ci yeneen année yii di ñëw am nañ yaakaar ni du demeewaat noonu incha allah. waaw ku nekk xam na ni. Euh, walum accréditation nekul lo affaire simple parce que dafa plateforme internet internet bari complications parfois surtout bu masse duggandoo ci plateforme pour out ay information pour def donc parfois am ay waral juste euh, euh, mais à part ça amul benen jafé jafé ci euh, organisation nemmeeku nañ ci yenn ci ay journaliste dañoo amone ay jafe-jafe ngir euh, sen accréditation yi ñu mën cee jot à temps ndax tay ji yellut ñu xolaat ko ngir déwén mu gëna yomb. waaw euh, lolu dëgg la euh, am lolu amna na benn waxtaan buñ ci jot def ñun suñu biir pour xolaat gëna améliorer waat lolu parce que bëgg nañ année yi di ñëw au plus tard septième burdu huitième burdu journalistes yëpp jot sen accréditation nekkul lu yomb nak parce que da ngay def 10 jours avant gàmmu bi annoncé ko donc nit yi dañuy xaar ba dernière minute commencé di dugal nga ni arrêté nga ñu ni non ñom tamit dañoo bëgg def seen liggéey te mënoo ni ah comme ko joxé woon naa date sangam te respecté woko donc duma la jox donc da fay xaw compliqué aussi tamit ci côté bobu journaliste aussi yëpp war nañ ci mëna jappalé bu baaxa baax motax yeen say ñuy am yeen jafé jafé mais je pense que bu ñu lolu euh walum accréditation dina gëna yombalal liggéey bi ci côté bobu non

am na différence ci boo expliquer mais bon loolu aussi tamit dañuy jàpp ni ku ku def loolu c'est juste que pour pour visibilité wala pour def yàq wala soit pour qui. mais en tout cas metti nañu trop vraiment daf ñuy metti parfois ñu toog nit interpellé nañu la waa yow seen kii bi lu mu wax moom mbaa néeg naa nga ni ko non non lii ak lii la wax mu ne ah ok dama foogoon ni lii ak lii donc je pense aussi journalistes yi rek ñoo ñu mën ci loolu parce que ñun ak ñoom ñoo bokk même lu ñuy def.

def jàmm ñom loolu rek moy sen sen i déclaration ak sen i mots. Euh, ban message ngay lancé. xana di euh, di rafetlu liggéey bi et puis euh, ngeen aussi tamit ngeen jàppale ci ci bu baax baax ci walu organisation bi aussi parce que je pense que d'ici année prochaine am nañ ay mesures ñu jël yo xam te ni bëgg nañ bu ñuy dëgmal gamu gi ñu tok au moins ak journalistes def ben point bo xam te ni benn stratégie de communication boo xam ñun ñëpp dañ comme ça mu gën a yombala bi je pense que lolu euh, message la boo xam te d'ici fan yi néew rek dinañ ko xol ak journalist yi ñu tok waxtaan ci en tout cas di lu liggéey bi vraiment compliqué na compliqué wol mais nak bir mo demee non fu am masse mom tout le temps fay am complication même bu dul gam bo xolé màkk sax problème day am malgré que les moyens sont là donc xanaa ñu xool ñu gën a rafetalee di jàppalante suñu biir et puis di leen sant leen gërëm di wax ni gàmm gi ça s'est très bien passé ñu jotul woon seen accréditation mujj nañ ko jot parce que dañuy dañuy prévoir ay badge yoo xam des ni au cas bu boo ñëwee tey nga yéex a def sa accréditation nga ñëw fekk préparal na yoo xam te boo ñëwee nga jot ci pour mën a def sa liggéey vraiment di leen gërëm di leen sant et puis euh, di leen jaajëfal di leen jox xam naa fan yi ki néew rek incha allah